allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp waxtaanu fajar bi si waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Bachiru Cissé mbokk yi ñu sant yàlla buur bi tabaaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa buur yàlla ma ñu may xéewalu fanaanug jàmm ñu di ko ñaan yàlla ñu yàlla may kenn kendalug jàmm ndax jàmm ñaari waxtu yii de ci moom dong la nekk moo ko yore ba tax na ci moom dong lañ koy sàkku mu defal ñu ko yal nañu ko yàlla buur yàlla defal ndax xéewalu suba yamu jagleel askanu jullit ñi mooy njël benn audience ba jullit yi am ak seen borom ñu joxe ko ci waxtu su néew ci ginnaaw te muy julli fajar gannaaw bu ñu déggee noddkat bi di wax ci nodd bi ne asalaatu xayrun min an nawm julli ba ngeen nekk di ko def de ak nelaw ba ngeen nekke de ah julli bi moo gën nelaw ba ngeen nekke moo tax nga dégg noddkat bi ne asalaatu julli te mooy jaamu yàlla ba leen di jokkaleeg seen boroom xayrun moo gën min an nawm nelaw bi ngeen nekkee su ko defee képp ku yàlla may kattan mu wërsëgal la nga war a mën a jóg laablu daal di siq ab jéego dem wuyu la nga xamante ni mooy woote bi war ngaa sant yàlla waroo gis ne sa ngóora la waaye yàlla moo la ko baaxee jalla waala mu doon njëlbeenu xéewal yàlla jagleel askanu jullit ñi lañu jaamu yàlla ci waxtu woowu yal na ko yàlla nangu lépp lañ ko ñaan yal nañu ko yàlla may amin waaye ñaareelu xéewal bi nga xamante ne mooy xéewalu nelaw ba nga xamante ne moom la buur yàlla tabaraka wa taala daal di xéewalal mboolem mbindaafoon yay dukkat ci kaw suuf si mu nekk xéewalu nelaw bi nga xamante ne ñépp ci bokk yem ndax yàlla moo ko jagleel lépp loo xamante ne mbindaa foon yay dukkat ci kaw suuf si yàlla jagleel na la la nga xamante ne mooy xéewalu nelaw moo tax keroog yéen a ngi fàttaliku ba mu doon bàkk boppam di bàkk jëmmam di wax ne moom dañ na seet na wecc ci melokaanu mbindaafoonam yi moo tax mu daal di yëkkati aaya ba nga xamante ne moom la ñuy duppee ayatul kursi yi yéena ngi fàttaliku jàlla wa ala keroog bu mu ubbi aaya bi ne allahu laa ilaha illa huwa alxayul mu daal di si teg laa taaxuduhu sinatun wala nawmu waaw ndax yooyu melokaanu mbindaafoon la waaw mu njëkkee ci melokaanam bu kawe bi ak melokaanam ju mucc ayib jalla wa ala mu daal ñu ne allahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne laa ilaha amul benn buur bu fi nekk di yàlla illaa huwa kudut moom alxayul qayuum moo fi nekk du dund be faw te moo fi nekk di taxawee jëmmam ak mboolem bi ndaafoon yi waaye dañ na ci melokaanam yu kawe ak melokaanam yu sell yooyu mu ne ñu laa taaxuduhu di ko jot sinatun séngéem coono tay wala nawmu surtu muy nelaw loolu melokaanu doomu aadama la doomu aadama mooy am coono yaram moom la bindee melokaanu tay tayal sonno daggale waaw melokaanu loof waaw moom la yàlla bindee doomu aadama loolu yépp à lu koy jot mooy nelaw après day dem nelaw yàlla nee na du tay du ma sonn du ma singim du ma jayaxu bay nelaw waaw yooyu noonu moo leen wax nii loolu melokaanu doomu aadama la yàlla nee na dañ naa ci yooyee laa taaxuduhu sinatun coono du ko laal tayal du ko laal sëngéem du ko laal jayaxu du ko laal wala nawmu sakantuma muy nelaw waaw lahu maa fi samaawaati wa maa fi l ard lu nekk ci asamaanu juróom-ñaar ci moomeelu yàlla la nekk kenn moomu ko nag waaw balaa nga koy xam nga jóge fii ba xam danga koy yóbbaale moomale ko sa bopp rek waaw ah, moomaleel bopp asamaan juróom-ñaar moomaleel sa bopp premier asamaan moomaleel sa bopp jaww sangam moomaleel sa bopp suuf sangam moomaleel sa bopp béréb sangam moomaleel sa bopp dëkk sangam loolu nit ñi mën nañ kaa accepter ndax yaa ko moomale sa bopp waaye keroog bu mu lay leeree ne moomoo ci dara booy jógee ko fii fii nga koy bàyyi ndax danga fii ñëw fekk ko fi moomale nga ko sa bopp kenn mënu ci dara. waaye booy dem ba xam da nga ko yóbbaale laa déedéet doo ko yóbbaale kon moom moo ko kon bu dee yàlla ne lahu maa fi samawaati wa maa l ard lépp lu nekk ci juróom-ñaari asamaan ci moomeelaam la nekk nangul lépp lu nekk ci diggante bi ci moomeelaam la nekk nangul lépp lu nekk ci juróom-ñaari suuf si ci moomeelu yàlla la nekk nangul wallahi boo bañee sonn boo ko moomalee keneen ndax sa bopp ndax kookee kon yàlla jooju buur bi tabaaraka wa mooy buur bi nga xamante ne moo yore xeeti xéewal ya ñu wax ni yàlla ñu ko yàlla defal yàlla ñu yàlla taas si barkeem yàlla ñu yàlla nangul yàlla ñu yàlla taas si barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla ñu yàlla xiir ci jëf ju baax mbokk yi démb yéen a ngi fàttaliku su waxtaan bañ ñuy am ak yéen ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ñu ngi yemoon ak yéen ci suratul munafiqun ci aaya bi nga xamante ne yàlla mu ngi joxe avertissement ci woy gëm yàlla ñi ne leen yéen ñi gëm yàlla bu mu leen tere seen alal yi bu mu leen teree jaamu yàlla. seen doom yi bu mu leen tere jaamu yàlla seen alal ak seen i doom yi bu ñu leen sànk alak leen ba du ngeen am jot jaamu yàlla waaw tey nag ñu fas yéene waxtaan ak mboolem wayjur yi ci na islaam tëggee na islaam créé ak ba jaar diggante wayjur ak doom diggante yaay ak doom diggante papa ak doom waaye diggante way dencante ñi tamit islaam lam leen orienté mbokk yi bokk na ci xadiisa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy aaya bi nga xamante ne wala xadis bi nga xamante ne yonent bi daf ñu ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati kenn ku nekk ci yenn sàmm la waaw sàmm la sàmm joo xamante ne danga war a bàyyi xel ca lañ la sàmmloo waaw waaw sàmm ngeen de kullukum ra'in kenn ku nekk ci yéen sàmm la wa ko mas'ulun kenn ku nekk ci yenn dafa am responsabilité bañ ko gàll te dinañ ko ko laaj an ra'yatihi lañ ko doon sàmmaloo mu daal di ñu détaillé mu ne ñu wa rajulu ra'in fi ahliha nee na wa rajulun ra'in fi ahlihi nee na képp koo xamante ne père de famille nga yor responsable bañ la sàmmaloo lañ la responsabilisé si sa njaboot wa huwa mas'ulun an ra'yatihi dañ kay laaj responsable bañ ko gàll nam ko doxalee ba tax na mu ne ñu perde de famille bu ne danga di sàmm ci sa njaboot te dañ la gàll lañ la sàmmaloo te loolu ñu la sàmmaloo nag ci say njaboot sa soxna say doom keroog bés penc dañ la kaa laaj noo ko sàmmee mu daldi ñu ne ñaareel bi wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha nee na ab soxna de képp koo xamante ne soxna nga nga nekk ci néegu sëy yenent bi nee na yow it sàmm nga ci sa néegu borom kër te responsable bañ la gàll mooy lang fa nekkee woon di sàmm say njaboot ak sa borom kër ak na nga nekkee woon ak sa boroom kër walla la doon sàmm njaboot yi mu daal di ñu ne kon dafa war ci bépp góor goo xamante ne da war a utal fa fa li rajulu yaxtaaju almaratu allati taslihu umman li awlaadihi fil nee na dafa war ci bëpp góor nga tànnal nga tànn soxna soo xamante ne ñoor a war a mën a meññal say doom ngir mu taxawee ci lépp la leen di yéwénalal ci seen futur waaye mun nañu wal maratu taxtaaru moom it dafa war a tànn rajul góor goo xamante ne lidi yuslihu abban day nangoo doon ba ju baax li awlaadiha ngir mu war a mën a taxawee doomam yi kon na góor di tànnee soxna ngir mu taxawee taxawaayu yaay ngir yéwénal nekkinu njaboot ba ñuy am dans la noonu la soxna si tamit waree tànnal boppam jikkir ju baax mu doon baayu doomam yi ngir mu war a taxawe taxawaayu baay ngir yéwénal nekkinu njaboot ñi nga xamante ne ñoom ñooy dikk ñëw wéttal leen ci seen dëkkuwaay jooje kon ñu dégge ci ne bépp góor dafa war doon kuy tànnal doomaami yaay ju baax yaay joo xamante ne doom yi bu ñu ñëwee war nañoo war a mën a fekk ci seen kanam yaay joo xamante ne day taxawee lépp lu leen di yéwinal seen diine ak seeni dundin ci kaw suuf si walla seeni nekkin góor gu nekk war naa tànnal doomam yaay ju baax waaye bépp soxna tamit war nga war a mën a tànnal say say doom baay ju baax baay joo xamante ne bu ñu dikkee dinañu fi fekk dinañu fekk ci pénc bi bàyyi joo xamante ne day taxawee lépp lu leen di yéwénalal seen nekkin ci dund bi ba tax na noonu la yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam tànneef bi bu fekkente ne nii la kon bés penc dinañu won ab waay joo xamante ne dinañu ko palaasel maqaama ju kawe fa yàlla ñu placer ko makaana bu kawe fa arjana waaw ci kër xéewal ba nekk fa yàlla mu doon arjana su kawe waa ji ne waaw man lii fu ma ko liggéey nu ma ko liggéey man sama jaamu yàlla demee wut noonu aw ma woon alal ba ma doon joxe asak daaw ma jàng daaw ma jàngale waaye maqaama biñ ma tabal nii fi ma ko amee ni ma ko amee ñu daldi ko ne jéggal bala sa doom bi doon jéggalul fa yàlla moom la yàlla nangu mu daldi la jox maqaama bi ni mel dala koy yóbbee fii nga koy liggéey dañ leen ne yàlla daf ne seen doom yeeg seen alal yi buñ leen alak mu jaar sama diggante ak yéen sa doom ak sa alal bu mu jaar sa digganteek jaamu yàlla jëlal sa doom daaray vacances yi ñu ngi nii ubbi jëlal sa doom yóbbu ko ci daara ji mu jàng alquran moo gën nga bàyyi ko muy dem taxawaalu muy woyaka fecc di dugg ci lu ne su boobaa duñ la tabal martaba ba xadis bi joxoñ fii de ba tax na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna al haada fa yuqaal bistigfaari waladika lak nee neena ab waaya ngi nii de dañ koo tabaxal château bu rafeta rafeta rafet daraja ju kawe lañ ko tabal ca kiru arjana yi ah mu ne waaw mante lii mañ lii ma am nii ci arjana lii ñu ma defal nii ci arjana ji de ah lii moom xaw na doy waar na lii xaw ma kañ laa ko liggéey waaw mais man mii sax sama dundu àddina est-ce que daanoon naa jaamu yàlla la tax ma méditer am lii est-ce que man sama dund àddina daanoon naa def la tax ma méditer lii waa ji di interroger boppam psychologiquement ñu daldi ko xamal moo tax mu ne inna rajula ab waayaa ngi nii la torofau darajatahu dinañu yëkkati am fil janna keroog ca arjanna naa moom yàlla gërëm na ko xéewale na ko ba tàbbi na arjanna waaye nag fa mu nekk daf di arjana bu yemamaay mu jékki-jékki rek gis boppam ci arjana yu kawe kawe ya nga xamante ne arjana bu kawe daraja bu kawe lañ ko tabal mu daldi di ne waaw fa yuqaal mu ne anna lii haada waaw lii nii nu ko amee luy lii waaw lii fu mu jóge ku defal lii muy interroger boppam psychologiquement ñu daal di ko xamal ñu ne ko fa yuqaal ñu ne ko bi istigfaari wala di ka lakk bi istigfaari wala di ka ah, istigfaar ba sa doom bi doon def fa yàlla ngir yàlla jéggal la moo tax yàlla jéggal la ci jéggal bala sa doom doon jéggalul fa yàlla moo tax yàlla taballa la garaat bi allahu akbar waaye day fekk ni nag daara yi vacances nga jël sa doom yóbbu ko ci daara ji mu dem njàng bu école tijjee mu cumuler ñaari xam-xam yi mu boole daara yi vacances ci jamono yi vacances mu am as tuut li mu fer ijji ci diine mu xam ni muy jàppe mu xam àqu wayjur ci moom mu xam àqam ci wayjuram mu xam àqu mag ci xale mu xam àqu xale ci mag mu xam àqu diine na ko islaam jàngale mu jàng diineem moo gën ngay bàyyi say doom mu di la offrir ay piri yu mu jëlee ci ay feccaka way danga kay lekk benn moment mu jeex ci diggante bi boo faatoo nit ñi di la ñaanal sa doom bi nga meññ sa digg ginnaaw amul dara sax lam la mën a ñaanal ndax lan wonoo ko yoon bi yóbboo ko fu mu ko war a jànge vacances boo jotee danga koy yóbbu fu muy feccaka way léegi ci diggante bi yow sa bët làqu na say am di jàmm ak say mbokk ñu am yërmande ci yow ñooñu ñoo jàngal ñooñu ñoo ñaanal yàlla ak yërmande yàlla bala fay fekk mais sa doom bi nga xamante ni moom la la yàlla dénk ba nga doon dund ak moom wonoo ko yoon bi moo tax avertissement bi jóge ko ci alquran ci surtu tahrim buur yàlla ne ñu ba léegi yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha annaasu walxijaara alayha malaikatun ilaajun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot mbokk yi nañ leen taxawee njaboot ni vacance bi bu ñu leen bàyyi njaboot yi ñuy taxawaalu danger la waaw fii la ñu fekk ay vacances yu ñuy tuddee ay vacances vacances waaw ñu jël tur teg ko ñu ne vacances waaye ban vacances moo gën mooy daaray vacances daaray vacances moo gën leneen lu ñuy wax ñu ne nangamu vacances nangam vacances nangam vacances nangam vacances naam baax na de baax na day ubbi xelu xale bi waaye daaray vacances bu fekkee ne catégorie bi dañ ko doon numéroté dañ ne numéro un mooy daaray vacances daaray vacances moo génn leneen lu dul daaray vacances yóbbul nanga mu vacances fayal ko nanga mu vacances yóbbu ko nanga mu vacances mais daaray vacance mooy numéro un waaw loolu nga koy fayal muy dem nanga mu vacances nanga mu vacances waaye nag daaray vacances fexeel na ci bokk boole ci daaray vacances mu jàng alquran am amma bu ko jàngee ci daaray vacances am na lu bari juzu sabbihisma rabbikal aala bi qul auzu bi rabbin naas bu ko jàngee ci daaray vacances am na lu bëri alal aqal min suuratul fiil ila suuratul naas alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil saar ba tàmbalee ci suuratul fiil ba keroog muy àgg ci qul auzu bi rabbin naas yàlla wërsëgal na ko fukki saar diggante alam kayfa bi qul auzu bi rabbin naas fukki saar jëlal sa doom yóbbu ko daara ay vacances bu mu nee loolu sax baax na am na lu bëri bu école tijjee mu continuer mu yokk la nga xamante ne mooy la koy njëriñ ci diine bi muy doxee ñaari tànk moo gën nga bàyyi sa doom muy dem taxawaalu ci ay pëjam muy fecc ak way ak danse yow loolu lu mu lay njëriñ delloo yàlla njukkal yàlla de jox la doom bu góor jox la doom bu jigéen amuloo dara loo ci def lu du di ko bàyyeeg seytaane seytaane di ko takk ci géttam géttu yàllaa ngi fi loo xamante ne subhaanallah dina la njëriñ fii ci àddina mu njëriñ la ci keroog alaaxira moo tax yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gëm yàlla qu anfusakum na ngeen fekk seeni bopp wa ahlikum ak seeni njaboot yàlla ana la ñuy suñu bopp ana lañ la ñuy fegal suñuy njaboot yàlla nee na naaran ci safara soo xamante ne wa quuduha naasu wal xijaara safara soo xamante ne mattam ba koy xamba di ko taal mooy doomu aadama yi ak xeer xeer ak nit la ñuy xambee safara su jahannama keroog bés pénc yàlla ne nag safara suusu am na ñu koy garde waaw am na force des ordres xaw ma force de l'ordre professeur Marie sama professeur nasaraan soxna mari bu dee baat bi noonu la waaw bu dee du noonu nag maa ngi jéggalu ci taalibe nasaraan yi garde koor yay garde safara suusu la ñu yàlla bëgg a wax ni mu ne ñu alayha moo ngi ci safara suusu safara su nga xamante ne matt ba koy xamb doomu aadama la doomu aadama yi ñooy doon mattum safara suusu ak xeer yeeg doji alayha ñay garde safara suusu lañu ñu yàlla bëgg a wax nii malaikatu ay malaaka ñoo koy garde de ilaazun ay malaaka yu ñàng malaaka yu ñàng ñoo xamante ne kenn mënuta natt seni ñàng nu mu toll seeni ñàngaay nu mu toll kenn mënu koo xayma waaw shidaadun ay malaaka yu soxor ñu garaaw waaw bokk na seen màndarga bi léegi laa yaasuuna allaha ma amarahum du ñu weddi yàlla ci dara laleen leen yàlla digal bokk na ci seen màndarga mooy wa yafaluuna dañuy jëf maa yumaruun lépp la leen yàlla dig moom la ñuy def du ñu weddi yàlla ci dara la leen yàlla digal bu leen yàlla ne nii la noonu la noonu lañ koy defee bu leen yàlla ne ni du noonu duñ ko sax xelaat ba ñu di ko def waaw ñu ne keroog aaya ba nekk suratul xàq ba yàlla joxe ord malaaka ñu war a nguufaan benn kàccoor ba nekkoon ci dund bi di mooy yàlla yàlla ne malaaka yi ni xuusu jox naa ordre xuzu téye leen ko jàpp leen ko allahu akbar mu fasiru ne ñu ne juróom-ñaari fukki junney malaaka ñooy babbeeku nara nguufaan jaam jooju juróom-ñaar fukki junney malaaka soixante-dix mille malaaka yàlla joxe ordre ne xuzuuhu na ngeen ko téye na ngeen ko nguufaan juróom ñaar fukki junney malaaka soixante-dix mille malaaka babbeeku nara nguufaan doomu aadama jooju loolu musiba la loolu ko yóbbee nga weddi yàlla la ko yóbbe bayloo xel dara luy jóge koo fàttali bañ lay fàttali ci alquran wala ci njàngale yonent bi lu la ko yóbbee yow danga opte jël seytaane mu doon sa àndandoor lu la ko yóbbee yow danga nga opté bokk ci waa këru iblis lu la ko yóbbee faalewuloo daral lu yàlla santaane faalewuloo dara la yonent bi digle lu la ko yóbbee danga doon topp sa banneexu bakkan keroog yàlla ne malaaka ne jàppaleen jaam bi ngeen guufaan ko ngeen yeew ko nar koo jëmale ko ci safara su jahannam est-ce que jar na ko jaru ko kon pour nga mucc na nga fegal sa bopp safara na nga fegal say njaboot safara deel góor góorlu ngay waxtaanak njaboot ci lépp lu leen di won kawteefu yàlla te mu dëpp ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa nga xamante ne keroog boo ñëwee buñ la doon laaj responsable bañ la gàll nanga nga say njaboot ci dund bi nga ne dama leen doon dundal dama leen doon dëkkoo dëkkal naa leen samay kémtalay kattan waaye nag ah gém naa góor góorlu bu daara vacances jotee de daanoon naa jël samay njaboot duggal leen ci daaray vacances xatta bu vacances bi jeexee daanoon naa góor góorlu ñu tegu ci njàngale diine bu dee lii mooy doon sa tontu keroog mucc nga muccal nga say njaboot waaye yàlla ne nag ah ku defut lii ku defut lii ah buñ la laajee leen loo tontu loolu mengoo wut ak lañu la sant de ndax njaboot yi dañ la kaa dénk ñu ne nga sàmm leen boo bàyyi sa géttu nag ci àll bi faalewuloo leen toppatoo woo leen xamuloo nag ba ñëw ak nag bu ñëwul bukki yeeg tëlli yeeg segg yeeg gaynde yi bu ñu gisee nag buy taxawaalu dinañ ko pàdd te buñ ko pàddee mooy mooy di ngeen di sénni ci documentaire bi rek ndax rabu àll ya nekk ci àll bi kenn sàmm leen kenn contrôlé leen ke amul kenn ku leen contrôlé waaw ñuy filmer documentaire yi bu ñu demee ci àll bi dinañu gis waaw njaay àll yi ak bukki yeeg segg yeeg gaynde yi waaw ay gis ay buffalo ba ñuy topp bañ ko ñib ci baat tëral ko nag waaw ñaar ñoo koy kar dàq ko bañ ko jàppee tëral ko su ko defee yeneen segg yekk yeneen gaynde yu ndaw yi ñu ñëw bokk ñu daldi ko siqatoo xéwaloo ko kon seytaane nii la mel si suñu penc képp koo xamante ne contrôlé wuloo sa doom bu góor wala sa ndoom jigéen a ah, boo ko bàyyee pénc be medd bi seytaane mooy segg be gaynde bi de bu ko pàddee da koy yóbbu ci njabootam su ko defee voilà mu nekk ci lay merloo diine mu nekk ci la yàlla gërëmul mu nekk ci la yonentu bi gërëmul te ki ko ubbil yoon woowu du kenn ku dut yow parent bi moo ne boo ko sàmmee na yonentu bi ne sàmm ngeen na ngeen sàmm njaboot ñi boo defee sa kemtalay kattan ci nanga ko mën a sàmmee amaana du dem dugg ci loolee ba tax na képp ku sàmm sa doom won ko diine yóbbu ko daaray vacances mu jàng alquran mu xam nañuy ñaanalee samay wuyjur kooku la yonentu bi ne parent boobu de dinañ ko may daraju bu kawe ca arjan mu daldi laaj daraja ji nu ma ko amee ñu ne ko bi istigfaari wala di kalak istigfaar jéggal bala sa doom bi doon jéggal fa yàlla moo tax yàlla nangu ñaan ba sa doom bi doon ñaan yàlla nangul ko ko mu daldi la may maqaama bu toll ni kon mbokk yi képp ku bëgg ëllëg sa doom di la ñaanal won ko yoon ba muy jàngee ñaan woobu mu di la ñaanal boo fi jógee ko walla yen ñaar ñëpp bu dee jógee ngoo ko ngeen fi bu ngeen fi jógee ko mu toog di ne allahuma xfir lii wali waaliday allahuma xfir lahuma warxamuhuma kama rabbayaani saxiira yàlla nga jéggal samay ñaari wayjur yàlla nga leen yërëm comme nuñ ma yërëmee ba ma nekkoon tu tànk ñaan bi nag pour sa jàng ko mu mën ko ñaan ko da nga koy yóbbu ci daara ji da nga koy yóbbu fuñ koy jànge mais boo ko bàyyee mu demal boppam seytaan ni diri ko yóbbu ko fu ñuy fecc ka way di ko mën a jàng ndax du foofu lañ koy jànge kon mbokk yi lii la leen Rewmi FM 97 andil ci waxtaanu fajar ba ngeen di leen teg ñun ci waxtu wi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa a ahsana waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jébbal béréb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan yu ñaan yàlla suñu borom tabaraka di ko ne allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha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 innahu huwal ghafurur rahim